amis internautes du Sénégal 7 salaamaaleykum nuyu nañ leen comme tous les jeudis tous les samedis à 7 dans votre émission Ka bu bees la bu mag bi lay bi àndandoo ak yéen ah, jeudi bu nekk ak samedi bu nekk bu waxtu yu lay jotee ci télé bu mag bi la muy sénégal7.com di leen gërëm bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun un peu partout ah, moo xam ngeen nekk Sénégal ak bitim réew faay mën a nekk rek du ñu bàyyi xel ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum bienvenue tey su euh, tey bi ñëpp ñoo ko suivre ndoo li nga xamante ni tey moom moo amoon Sénégal journée de manifestation euh, Euh, ay dégâts matériels yoo xamante ni noté ko un peu partout à Dakar euh, et aussi à l'intérieur du pays tey nag cas bu dañ koy daal di soppi def ko édition spéciale fas yéene waxtaanee journée bi nga xamante tey moom la euh, ngi fi toog moom ak ñun bu ko defee aussi comme tous les sénégalais lambda moom tamit mu joxe jàngatam ci li nga xamante tey noonu la journée bi lay ak lépp loo xamante am na ci xam ngeen Sénégal c'était aussi actualité fu mu mënti foofulee fas yéene leen ko dégtal donc loolu nag waraloon tey ki nga xamante ne moom mooy Wally mën naa ni démb ak tey donc mu ngi woon ci terrain bi donc li nga xamante moom mooy événement yi en temps réel moom tamit mu ngi fi toog bu ko defee mu décortiquer ñu jàngatal ñu li nga xamante ni ci am donc rapidement aji ziar naa la bu baax a baax aman mbégte jàkkaarloo ak yow <laughs> di sant yàlla bu baax a baax julli sanga sanga bi alayhi salaatu wasalaam gërëmati sama ñaari waajur yi tedd ya waaye sant sama sëriñ ba sama xarit ba sama sila ba Cheikh Abdou Karim Mbacké borom di di borom a kaarimax laa jaajëfal sama mbokku taalibe Cheikh Abdou Karim yi tamit moo leen fàtte ginnaaw waaye bëggee eh, bépp mbokku internet bu ñu toog di ñu suivre jamono bi tembe à travers Sénégal 7 nga xamante ni tubarikàlla nee naa ko lu nëbboon ñu ko indi lu réeroon ñu ko indi te ko saabu ji décortiquer le ko waaye nag tey édition spéciale euh, bu ni muut na ne def mënut a ñàkk mm-hmm. tubarikàlla ñu daal di ñëw nag euh, macha allah fas yéen cee waxtaan teg ko ci table ji ngeen di wax di njox njox di ko jox ko maa jënd ko lekk maa la ko. comme d'habitude mais ma ni que tey tu as eu nekkee tey di seetaan yéen di gis li nga xamante ne am na vidéo yi xam naa ne fi nga toog moom yaa ngi yor sa kurus et yaa ngi woote ah di tàllal loxo sa sëriñ monsieur Abdou Karim Mbacké pour yàlla def jàmm am ci réew bi ndaxte jàmm ak euh, boo ko amul euh, nee naa ko mënoo am mënoo am mënoo daal. Mm-hmm. parce doy na waar jaxasoo nit ñi seen fit dem na kenn nekkatul sa saw boo xoolee tey handicapé nañ liggéey jàmbur yu bëri place jàmbur yu bëri ibiwu mm-hmm. et tout doy na waar doy na waar dina jàmm dellu si réew mi daal plus rapidement possible parce que ñun soxla nañ leen lii daal vraiment mm-hmm. vraiment donc loolu le mooy euh, kàddu bu njëkk bu Adji donc damay door waxtaan bi ak suñu reporter bi nga xamante euh, tout d' abord man je tenais à vous féliciter l' équipe de Sénégal 7 ci liggéey bu am solo l' équipe de Sénégal 7 Wally donc yow yaa nekkoon sur le terrain mën naa ni euh, loo xamante am na da ko dund donc mën nañu démarrer waxtaan bi ak premier point bi nga xamante ay vidéo yu ñu gis la fi mi dooree muy foofu la ca kër cité mm. ak Ousmane Sonko Sonko bi nga xamante ne dañu gis que ni les de l'ordre dañ ko malmené daal di koy dugal seen oto mën nga dikkaat ak ñun un peu ci li nga xamante moo amoon foofu tey ci cité Kër Gorgui. jërëjëf ah, maa ngi lay nuyu euh, di nuyu Adji di am mbégte bu baax a baax di rejoindre euh, plateau K bu bees donc c' est une fierté pour la première fois ma toog ak yéen si plateau bi. nee naa leen si bees laa bokk parce que je me rappelle euh, bi ñu nekkee woon si euh, accident si kilo bi ak Kaffrine. donc doon participer noonu. ak mhm. K bu Mbour bi également. loolu également fierté la tey ñu intégré si li nga xam ne moom mooy si émission bi. di nuyu Sénégalais yëpp di masaw également ñi nga xamante ni mooy Sénégalais yëpp si li nga xamante ni am na tey. Mhm. Adji maa ngi lay nuyu am. Euh, yaa ngi koy wax si ndorteel gi euh, par rapport ak li nga xamante rek moom mooy li am mhm. euh, si procès Ousmane Sonko ak Mame mu nekk une affaire diffamatoire mhm. ndax boo xoolee si njëlbeenu procès bi yëpp bi mooy troisième fois ñuy dem li nga xamante rek moom mooy sa duwaanu tribunal mais tey li ñu gis si procès bi ak événement bi mhm. dafa am différence ak par rapport ak li nga rek moom moo di euh, ba existé woon ci deuxième euh, li nga xam moom mooy procès bi amoon sa douane tribunal mm-hmm. Ousmane Sonko ak Mame Mbaye mm-hmm. parce que boo xoolee fan yi tension bi ni mu amee euh, si langum politique bi rawatina procès bi mm-hmm. yaakaar naa ne tey dafa gën a jéggi dayo xam nga tey si matin bi ñu demee fi nga xam rek moom mooy cité kër góor gi mhm. parce que d'habitude bi ñuy door li nga xam rek moom mooy procès bi mhm. euh, kër Ousmane Sonko la ñuy dooree mhm. pour xool foofu noonu euh, aménagement bi pour xool foofu également li nga xam rek moom moo di euh, dispositif bi ak environnement bi taxawaay bi ndaka lay demee mais d'habitude bu ñu demee lu ñuy njëkk a nemmeeku mooy Euh, une disposition très sécuritaire par rapport ak li nga xamante rek moom moo di la police nationale bi nga xamante ni dafay installé wu. Mm-hmm. donc euh, loolu mooy act bu njëkk bi nga xamante ni euh, moom la ñuy def sur le terrain moom la ñuy moom la ñuy constaté. Mm-hmm. sur le terrain rawatina nag fi nga xamante rek moom mooy chez Ousmane Sonko. li si gën a yéeme am xam nga balaa may ñëw tey damay revenir si démb. parce que avant avant tey amoon na démb. démb mu nekkoon parce que plan d' action bi la doon le 14 le 15 Euh, alors la 14 bi ñu jugee ci manifestation terrain ak APES le 15 lendemain bi ñëw nañ ci li nga xam moom mooy. Euh, mooy marche nationale bi. ak ni ñu ko foogee woon ak ñoom nañ ko annoncé woon mun nañ su ma doon def sama analyse dama naan euh, échec la pour li nga xam rek moom mooy yeewu askan bi loolu sama jàngat bi may def la parce que ni mu réussir woon le 14 le 15 demeewul noonu. dañ ko barricadé voilà foofu laa bëgg a ñëw. Mm. parce que même la 15 boobu noonu nga xamante ni. Euh, moom Ousmane Sonko bi nga xamante ni amoon na yéene génn euh, manifester li nga xamante ni mooy euh, la ñu bëggoon def maanaam manifester dans tous les quarante cinq départements du Sénégal mm-hmm. loolu mu mujjul antu parce que dispositif bi ma lay wax mooy police ak gendarmerie ñu ngi woon foofu présenté wu foofu noonu barricade li nga xamante ni effectivement mooy li nga xam moom moo di domicile bi mm-hmm. beneen bi si gën a yeme mooy ñun ñi nga xam te ñoom ñooy taskatu xibaar yi gis bi ñu ñëwee Euh, on avait du mal à accéder si li nga xam moom mooy si diwaanu cité kër góor gi bi loolu dafa nekk loo xamante ni euh, lu ñuy ñaawlu la euh, ñun ñi nga xamante ne ñoom ñooy jeunes reporters yi ñun ñi nga xamante ni tey terrain bi la ñuy fréquenter pour mën a fekkee yenn événements yi te loolu aussi dafay am solo parce que le métier d'un journaliste da nga war vraiment assister aux faits su ko defee nga mën koo relater. ok donc mën nañu ñëwaat un peu ci nga xamante moo fa jot euh, am ci vidéo yi ñu gis. déjà man euh, benn boo xamante ni Adji Mass euh, def na le tour du net. Mm-hmm. Mm-hmm. tey gis nañ ci ñi nga xamante ni ñoo àndandoo ak Ousmane Sonko. Mm-hmm. ñu gis koo xamante ni dañ ko tiré ci tànk bi mu nekk mën naa ni première manifestation yi waa en tout cas wala première image yoo xamante ni gis nañu ko mu nekk loo xamante ni vraiment lu lu lu yéeme la ah. ci ci Sénégal donc loolu le la laa bëgg ñu dikk ci point par point. foofu rond point ba. cité kër góor gi lan moo fa xewoon exactement ba waral euh, force de l'ordre yi tiire koo xamante waaw xam nga foofu euh, li xewoon foofu nekkutoon ci rond point kër góor gi bi. Mhm. Ousmane Sonko bi muy génn euh, à 9h. 9h kër góor gi. d'habitude buy dem dafay jaar corniche bi mun a dem noonu fële sa douane terminal mais bi ñu mhm. ñëwee ba ci rond point Mermoz. Mhm. rond point Mermoz. noonu. daanaka li ñu njëkk a gis mooy. nombre takk der yi nekkoon ci kaw tali bi dafa jéggi dayoo déjà mais bi ñu ñëwee ba ci rond point Mermoz bi noonu am. xam nga gendarme yi ñoom euh, lu ñu mënutoon digérer mooy mbooloo bu takk bi nga xamante ni toppoon na Ousmane Sonko. Mhm. parce que ndaw ñi dañoo dañoo présent woon foofu topp Ousmane Sonko bëgg a ànd ak moom pour dem tribunal. d'accord donc bi ñu ñëwee nag ba si rond point Mermoz bi. Mhm. gendarme yi dañoo bëggoon mbooloo moom tasaaroo. parce que circulation bi dafa bloqué woon xam nga benn instant. Mhm. Euh, circulation bi ñu jugee Wakaam di dem. Mhm. Euh, université di dem Wakaam euh, foofu yëpp dafa bloqué woon parce que environ 40 minutes yoo xamante ni oto yi ñu ngi taxaw parce que mbooloo bi toppoon Ousmane Sonko mu ngi mun koo gunge dem tribunal. Mhm. dañ ko dañ ko bloqué woon foofu noonu. mais gendarme yi lu ñu njëkk a def mooy ñoom dañ ne. maanaam ñi àndoon Ousmane Sonko dañ ne Ousmane Sonko itinéraire bi muy jaar ñu ko ko tànnal c'est-à-dire avenue Cheikh Anta Diop lañ jaar pour mun a dem fi nga xamante ni moo di sa tribunal de Dakar xëy na peut-être lu ñu subiroon mhm. euh, si séance yi amoon fële sa douane corniche ba mhm. euh, loolu également impact la peut-être ak li ñu leen defoon dóor grenade lacrymogène yooyu mhm. euh, mais nag ñoom d'accord uñ ci le fait que ñu bëgg jaar fi nga xam moom mooy si avenue Cheikh Anta Diop de mais gis nga garde rapproché bu Ousmane Sonko bi man biñ koy biñ koy dóor li nga xamante ni moom moo di Euh, bal bi ci tànk bi man maa ngi ko gis maa ngi ko fekkee parce que moment man côté bi ma nekkee woon boobu maa ngi taxaw si oto bi nga xamante ni pick-up bu journaliste si taxawee woon mhm. donc mënu woon am accès carrément nag fi nga xamante ne fa la nekkoon mais image yi ñu ngi ko doon gis effectivement mais dafa dafa nekk loo xamante ne pour man dafa dafa jéggi dayoo si gisin mhm. mais dafa jéggi dayoo également si si histoire politique bu ñu demee ba politique toll foo xamante ni tey euh, policier dafay dafay dóor bal Mhm. nga tiim euh, vraiment tiim nit ku jàkkaarloo ak yow. Mhm. Euh, nga dóor ko bal pour man loolu am. te foofu amuloon benn menace amuloon dara lu graaw loo xamante ni am na fa lu waral tey mooy li ma la wax xam nga nee naa la mbooloo bi toppoon Ousmane Sonko dafa nekkoon mbooloo bu. takkoo takkoo takk boo xamante ni ñoom dañ doon soutenir seen leader ngir mën koo ànd ak moom ba tribunal. Mhm. mais nag loolu du mën a sotti parce que. Euh, gendarme yi un peu partout ñu ngi taxaw. Uh-huh. Euh, li si gën a graaw te doy waar mooy en plus xale yi ñun lu ñu gis laay parce que ñun ay journaliste lañ mënuñoo taxaw fii di juger lu ñu mën a def mooy. Uh-huh. mën na rek daal di décrire uh-huh. xale yi yoruñu xeer. en tout cas gisuñ benn xale boo xamante ni si ñu àndoon ak Ousmane Sonko ñoo xam ne yor nañ fa ay xeer wala yor nañ fa loo xamante ni daal mën na provoquer li nga xam ne rek moom moo di histoire lu dul ànd ak moom euh, ko euh, conduire fi nga xam ne moom mooy seen waanu tribunal chose qui est tout à fait normale parce que seen leader la dañu ko woo donc mu dem wuy mu war a mhm. euh, war nañ ko mën a euh, àndandoo ak moom comme ni ko Adji Mass la woowee tribunal nga war a dem am nga ah. droit aussi nga woo ay jegeñaale nga ànd ak ku la neex ànd bi voilà démb nag démb nag la fi mhm. muy jaar ak fi mu jaar comme moom moo bëtam abaloo ko bëtam mhm. moo ma ruwam gi mhm. moo ma bakkanam bi mhm. yow nee nga ko fii ngay jaar magum yàlla jëm moom nee na fii la bëgg a jaar sëgam meeting yi nga ko mën a may ba mu def ko ci xel mu dal coo amul coono jibul dara jibul mhm. bàyyi ko mu aw fam war a aw dem wuy ji mhm. mais mais xëccante bi amul sens pour man mhm. dëgg neexut d'autant plus que moom Ousmane Sonko ñu ko dégg muy wax que ni corniche bi ko bëgg bu ñu bëggoon mu moom foofu dalul xelam ndax ay euh, milice ak ay nervi donc moom ci li mu wax aussi buy dem tamit am na droit mu jaar ko mu jaar dal xelam wax dëgg yàlla ndax nag mag moom nee naa ko li dal xelam lay daal di def te wax dëgg yàlla nag boo bëggee dégg dëgg nii nag nee naa ko trop c'est trop waxtaan dëgg ca ndaxte dëkk boo xamante ne tey empêché nañ ñu ñii wax di wax ak yow defi ñu émission mm-hmm. kenn gënu sa kër tey bu doon def émission bi defe naa ne duñu bougé tey fi fi ñu fi ñu nekk suba ba ngoon jot mm-hmm. handicapé liggéeyi jàmbur yi parce que nag euh, magum yàllam jëm mm-hmm. woo nañ ko mi ngi dem wuyu ji bàyyi ko ak sagoom mu jaar fa mu bëgg a jaar meeting yi moom moo gënoon ñaata jégaa la woon <laughs> moo gënoon a bëri nit ñooñu ñu wàccal ca téere ba bu ñu ñëwoon xanaa dina gën a catastrophe mais ay affaire yu jaaral fii jaaral fii mu jaral leen ñuy tiraillement parce que nag gat sa gat sa teg nañ ko nag fi mu nekk nii mhm. parce que tamit xale yi ñu ngi ci mhm. kenn amul ci métier mu métti mhm. doy waar dëkk bi nit ñi empêché na nit ñu liggéey ji te doo mën a wax pàcc bi doo mën a wax pàcc bi doo xam parce que force de l'ordre yi ñu ngi ci côté ëpp euh, ñu ngi ci côté euh, comment dirais-je encore pouvoir force de l'ordre pouvoir état bi pour veiller. pour veiller ci ay matériels mais matériels yu yàq moo dul yoon. Mhm. man lii moo tàng sama xol. Mhm. man nee naa ko lu nga xamante ni tey bu ko yàqee ñun ñoo suñu xaalis ñun ñoo koy defaraat. Mhm. pour man jàng ko. mën nga mer mais nga muus. nit di dañ doo meree da ngay muus. mais doo mer topp li nga xamante ni moom moo di sa xol. ndaxte lii ñuy yàq ñun dañ tey jii. ñun ñoo koy jëndal ci suñu xaalis waxtaan dëgg ca la mm-hmm. Mm-hmm. te day gën a metti ndax defoon nañ ko fi tout récemment mm-hmm. li ma lay wax yàq fi Auchan yàq fi lépp ba pare dëkk bi dafa gën a tax te lii day indi li nga xamante ne moo di bekkoor ci réew ndax dafa metti léegi nag li problème ba problème mooy que ni la trente incha allah la war a wuy ji foo mu a jaar bàyyi leen ko mu jaar fa ngeen waxtaan daan la mu yàbba ngeen dem ñu jaar fa procès bi jeex benn yoon ñëpp nekk ci jàmm parce que nit ñi on a d'autres choses à foutre que chaque jour benn personne nit ñi ko chaque jour buñ ko lalee fii lalal ko fee lalal ko fee doo comprendre mhm. dëgg neexul kon nañ xoolante ñu defante lu rafet moom moo gën parce que dëkk bi soxlawul lii mhm. da ngay toog Italie sax nit ñi dañuy woote à l'extérieur est-ce que réellement lii ñuy wanee ak image ci Sénégal est-ce que lii Sénégal la mhm. ñoom dañuy posé wu la question ñun ñoo xamante ni nekk Europe dem ba nga xamante ni amatuñu espoir li nga xamante ni moo di seen dëkk loolu c'est grave. ndax image yu ñaaw yi ñu gis muy circulé ci internet bi internet bi. Mhm. jàpp ay nit dem ay ay homme de tenue jàpp ni tojate oto yi doy na waar. Mhm. doy na waar vraiment. en tout